mais sa diggante ak jaago noo ko gisee. mais yow xam nga ku bëree treize combats bëri booy Ngaay booy Ngaay ak Sa Thiès bëri nañ Boy Ngaay man la daan bëri ak yaa ngi dégg fu ma ak yow bëri ak Yadi Kool bëri ak euh, Africa bëri ak Simka bëri ak bëri ak Jili Malaajo bëri ak Ñaas Ñaas bëri ak Ndiasse 2 la samaay Fallou Seras nóoree ni waaye yow it. Africa Agogo ak Africa ak yow it yow it gaan yow nga naan ma ay booy boo xamante ne comédien la. booy boobu noonu nga naan ma ne damay magam saddu moom moroomam magam xooluma Liis Ndiago men waaye ban Liis Ndiago ma gën ko doon doomu Ndiago accu ma man sama yaay Hélène Mendy la tudd maa ngi Laurent maa ngi ak Simon maa ngi ak Cécile maa ngi ak Gomis maa ngi ak maa ngi ak Adel maa ngi ak Adel maa ngi ak maa ngi ak Jokin maa ngi ak Kirisil. gënuñu ma doon doomu njaago man kenn mënu la tee laa dëkk. kenn mënu laa génne sama cosaan yaay. kenn mënu ma see génne. sama ay Hélène Mendy la tudd. waaw Malick. ma ko fenn bu Siteu ma muy wax loolu laa ko wax man doomu njaago laa. kon fi mu toll nii suñu andi damaa bokk si famille Joola ah. damaa magu Joola am magu Mankañ am magu Njaago. fépp nga bokk. déggoo la nag am magu soose Blaise Pascal Cissé yaa naa ma kii Touba Maal sama mag la maa ngi moom ñoo bokk benn yaay. maa ngi koy sant di ko gërëm. comprends point yow mag bu sonn si man la comprends point yow mag bu ma jàppale la. sant mag Laurent bu baax a baax a baax a baax. Cécile maa ngi koy sant bu baax a baax Léon maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax. waaw di sant ma ne la samaay Simon bu baax a baax a baax sa mag ju baax ji. waaw noonu la demee man accuma njaa doomu njaago laa de waaw noonu la demee nag. mais fi tool toll nii. ku loo ku loo ko. déggoo Zanu kii sama rakk la. sama mbokk la sama deret la. noonu la demee Zanu kaay toog nii leeral leen ko. kaay toog nii leeral leen ko. fi mu toll soo nee soo nee soo nee ak kan. limal ma say adversaire parce que fi mu toll nii ñu ci bëri yaakaaroon nañ ni euh, bàyyi nga. dama ne la Liss Ndiago bu mu ñëwee ma may ko sens bëreeg moom dama koy may sens ndaanaan yu ma daan du leen daan. wala déggoo fa ndaanaan yu ma bëreel du bëreeg ñoom. sa digganteeg Tafa Gueye. mbëri nañu nañu. Tafa Gueye de du mbër mbër yi mbër yi mbër yi daw di la ay Luis Ndiago yi dem di laaj ay di laaj ay Tafa numéro 2 yoon lañ bëgg. dama ne nañu bàyyi xale yi jox paa yi xale dañ koy jox xale cinquante cinquante 50 Luis Ndiago Tafa Gueye du moromam ay cité yi bu nañu jajal seen morom yi di bàyyi daw. combat yi nañu daw xale xale mag ak mag. damay dëgg. ngeen Tafa Gueye de. dama ne la ñii daw di ko laaj yëpp du ñooy mbër du ay mbër yoon la ñuy jéem a ut. yoon la ñuy jëm ut ci moom xam nañ ne Tapha Gueye numéro 2 loolu. comprends ba yow nañ jël seen morom ku jëlul Malick Ndiaye 37 pour sa man damay maye.